asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziaraat xanaa di fàttali rek képp koo xam ne bëgg nga di jot vidéo yi ngay bës zem bu bu jot nga mën a abonné ci chaîne bi di ko mën a am ndax émission yi njariñ la ci nit ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne dañuy rafetlu émission bi ba di wootee fu nekk ci àdduna di rafetlu émission bi waaye mbégte mi dañ koy sédduwaat ñun ñëpp rek ndax li taxoon ñu def ko rek mooy loolu kese mooy fu waaye mën a nekk daal njariñ li fekk la fa ndax du ñëpp ñu mën a am sensu jàng wala mën a gëstu ay plante wala mën a jàng arab kon tey émission gëstu dafa ñëw spécial ci ñetteelu numéro ñetteelu numéro bi incha allah dafay wax ci laurier laurier nag comme ni ngeen ko gisee nii garab la boo xam ni ci liñ ëpp di ko jëfandikoo feuille bi ci la bokk gis ngeen ko nii laurier nag bu fekkee ci wàllu ñi ko xamul dëgg-dëgg mooy li ñuy tuddee njaxas nga xam ni mag ñi daan daanoon ko boolee kaani ak poobar di ko jaay tuddee ko njaxas la taxoon nag ñu tuddee ko njaxas mooy lañ ko booleek yeneen matières yi bokkul danañ ko def ci ceeb di ko def ci lu bari waaye nag tey dañoo ñëw spécial ngir ba leen wax njariñ yi ndax buñ ko waxee ba ngeen xam njariñ li amul benn nit bu ko mënul jariñoo du kenn du gone du mag du góor du jigéen kon kenn ku nekk mën na ko jariñoo ci laurier la ñëw kon léegi ñu yëg ci plateau bi allah wax leen ci njariñu laurier bismillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa donc ni leen ko waxee woon léegi rek ñu bañ a jël temps bu bari ku ne xam na ni jot bariwul bu ko defee dañoo ñëw ci tey li nga xamante ni mooy euh, lu am solo sajaratu xaar nag mbokk yi lu am solo la mooy rek Euh, am ah. laurier mbokk yi tey dañoo ñëw ci lu am solo ni leen ko junjee léegi ku ne xam na ne euh, émission bi dafay dox ci lépp loo xamante ne rek dana jëriñ nit ñi ci seen wàllu wér-gu-yaram émission gëstu tey ñu indi loo xam ne àdduna wérgel këpp xam nañ ko fii ci Sénégal it ñu xam ko bu baax waaye ci façon bi ñu ko gën a xamee rek mooy def ko ci ñam mu changé goût bi gën koo defar waaye nag fekk na li tax mag ñi jëloon ko di def lu ñuy togg def ko ci njariñ yu yu yu bari yi mu amee moo taxoon kon loolu dafay jar lu nekk ñu def ci ay gëstu di ko di ko xamlewaat kon indil ma laurier rek ma wan ko mbooloo mi fàttali garab la goo xam ne garab bu ñu xam la ci àdduna bi tegal noonu feuille bi mooy xobu laurier lu bari ay njariñ la macha allahu rabbi kon laurier danañ ko jëfandikoo ci fànn yu bari mu bari loolu lu muy jariñ ci doomu aadama ci wàllu wér-gu-yaram kon laurier dafa bokk ci li nga xam ne ay njariñam la dafa bokk ci li nga xam ne doomu adama daf ko war a soxla saa su ne boo gisee ndox sax ñu bëgg ko ci naan lu bari bokk na ci li ci jiitu mooy dafay dimbali sa ree parce que bu fekkee da nga xëy naan ndox mu bari dafay raxase urine ba mu set loolu dafa bokk ci liy dimbali ree bi ndax dafay seeyal li nga xamante ni ay grain la yu nekk ci yow donc loolu sax du thème bi waaye li ma bëgg wax rek mooy rein dafa bokk ci li nga xamante ni saa su nekk daa war di dund di set di am doole te dafa bokk ci li koy dimbal nag laurier da koy def kon laurier bu fekkee da nga jël jël toll juróom-ñaari xob wala juróom-ñetti wala sax juróomi xob bu fekkee juróomi xob la nga def ci un litre et ba deux litres nga baxal ko ba mu nga di ko jël ba mu woyof xam boo ko jëlee xob baxal ko wala juróom-ñaari xob nga def ci trois litres boo ko baxalee dafay dafay oyof nga di ko naan saa boo lekkee dafa bokk ci liy raxas rey daf lay dimbali bu baax a baax a baax kon loolu nañ koo jàpp mooy premier point bi deuxième point bi mooy li ñuy wax règle douloureuse waxoon nañ ko ci émission ba la weesu ci leneen ndax tàndarma daf koy def daf ciy dimbali nit waaye tàndarma dafa bokk ci li mu gën a spécialisé wu mooy dafay tax règle bi waroon arrêté tey continuer daf koy arrêté donc laurier dafa bokk ci liy dindi euh, euh, euh, li nga xamante ne dafay dimbali jigéen buy gis règle muy metti nga xam te bala moo gis règle biir bi day metti muy wiñaaru di jënd garab bu ne di ko naan su gisee règle ba pare tamit du am jàmm nga xam ne bu tollee ci règle ci jamonoy règle am problème kon euh, ni da ngay jël laurier nga jël juróom-ñaari wala juróom benn xob yi wala maximum huit feuilles nga def ko ci trois trois litres de di ko naan ni nga koy naanee nag mooy saaboo boo dee ba toll ci jamonoy règle bu sa règle jubsee rek nga koy naan boo koy naan ba règle bi arrêté waat nga nga arrêté ko da ngay gis ni problème yooyu dootoo ko amati kon bokk na ci li muy dindi mooy Euh, règle douloureuse bokk na ci boo koy daan li ñuy wax waxuma la estomac waaye ulcère sax daf koy faj subaa nag da nga koy booleeg nepp-nepp da nga koy baxal boole koog tuuti nepp-nepp di ko naan dafay dindi ulcère ulcère nag mooy góom buy nekk ci biir nit nekk ci butit bi nga xam ne fa la lekk gi di loolu mooy ulcère ulcère boobu nag euh, dafay indil nit ay jafe-jafe yu baree baree bari waaye laurier da koy faj kon loolu mooy ñetteel mbir bi nga xam te ne laurier daf koy daf koy dimbale nit laurier dafay faj bopp yi métti yooyu nga xam ne doo xam lu mu doon am na ñoo xam ne foo leen fekk seen ay garab mi ngi ci seen poos ndax lan dañoo am jafe-jafe bopp boo xam ne daf leen a sonal bu yëngoo tuuti sax wala mu xaw a dal ci miir fan yooyu du ñu am jàmm loolu yi dafay faj bopp bi métti nan la koy fajee nag mooy da ngay jël lu takk doo jëlati kon juróom-ñaari xob da ngay jël lu tollook tibb ba mu fees euh, nga xam ni danga koy def ci ndox baxal ko ba culul jigéen nga teggi ko suulu ji di ci kaw boo ko def dafay lugg bopp buy metti bu la neexee boo defee loolu ba noppi nga jël quelques feuilles boo jëlee trois feuilles nga def ko ci baraada baxal ko ba mu nga di ko naan moom tamit dafay dindi bopp buy metti daf koy daf koy soigné ci lu ah. lépp lu aju ci wàllu poumon aju ci wàllu cardiaque aju ci wàllu cœur ci poumon lu mën a doon soo jëlee lodee di ko suuroo waxuma suuroo euh, nag saxaar ndax saxaar ku ne xam na ni bokkul ci liy dimbali ku amee asthmatique wala yu demee noonu su booba suuru gi yaa ngi koy suuroo ci ndox danga koy def ci ndox ba mu bax nga di ko naan boo ko defee daf lay dimbali bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne mooy wàllum euh, lépp lu aju ci pomo am na ñoo xam ne dañoo am problème bu ñu lekkee mbokk yi lu am solo la am ñoo xam ne mën nañoo lekk suba ba jant soo mu nekk seen biir yi ñuy géex rek loolu feebar la loolu feebar la mooy euh, lekk te du rees feebar la boo xam mën naa indi lu nekk kon soo bëggee am digestion rapide laurier daf koy def ni ñu koy defee nag mooy saa boo lekkee ba suur moo xam ndékki la moo xam añ moo xam reer fekk na baxaloon nga ba mu oyof maanaam set xob nga def ci 3 litres d'eau wala 3 litres et demi soo ko baxalee ba mu wàññeeku doo day oyof saa boo lekkee nga naan ci kaas soo ko defee euh, incha allahu bi loolu loot dal kon loolu mooy nekk première partie bi incha allahu bi semaine bii di ñëw de leen indil beneen partie ci wàllu ndóoriyee muy garab goo xamante ne garab bu am njariñ la garab bu am importance la comme ni ngeen ko gisee des na des na yoo xam ne bu ñëwee rek li xam ne mooy njariñ gi ak ferñeent yi ci nekk dana gën a leer kon ñu ngi leen di dig daje ba semaine bii di ñëw kon li ñuy ñaan rek mooy ku bëgg di jot vidéo yi ñu def na ngay na nga koy like na nga abonné wu ci seen bi ndax lu baree baree ngi ñëw loo xamante ni bu ci nekk njëriñ lay doon ku am question tamit di ma koy waxee boo wootee ci ci numéro yi wala nga bind ñu message danañ la mën a tontu ci sa question asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu